asalaamaaleykum wa rahmatullah taxalaa wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki Sénégal mbokki àdduna bi maa ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen balu ak baax a baax di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm def ko ci àdduna bi yépp di ñaan wéradi gi ñuy wax coronavirus yàlla na ko fi yàlla jeexal su nu mu gën a gaaw tey nag dama amoon lu ma doon ñëw di ko leeral ci sama digganteeg samay mbokk ak sama diggante digganteeg taalibe yi sëriñ Touba yi nga xam ne dañ maa bëgg ngir Serigne Touba waaye dañ maa bëgg ngir Cheikh Massamba mi sama maam waaye dañ maa bëgg ngir sëñ Moustapha Massamba mi nga xam ne mooy sama waaj Serigne Mourtala Mbackeem Serigne Touba kat damaa mas a dégg mu wax ni daa am ko ñëwoon ci moom di ko laaj ni ko Mbacke ab xeex moom baax naa mu ne xeex de baaxul waaye nag boo demee ba koy def. na nga fexe ba bu la kenn gañe xeexuñu nag woote xeex lin ma sa woote moom xeexal lislaam taxawal yonent bi salaa waaye taxawal Serigne Touba waaye fu dem ñu taxawal ci sunu maam ci sunu masamba dem ñu taxawaay fa suñu taxawaay waajur di tuubal ay njaago di roy si maam Cheikh Ibrahima Fall di taxawal ay daayira képp ku ñu xamit ci loolu nga ñu xam waaye nag xëy na jamono moo fa toll ndax saytaane dafa bari doole lool te iblis liggéeyam bi du ci sonn du ci tay ñun nag fa ñu nekkoon ñuy xamal bi yi nga xam ne dañoo topp ci suñu ginnaaw ñu leen di xamal ni fan nekkoon ba tey ña nga fa jóguñu ñu ngi topp ci ndigalul yàlla suñu borom bi ñu ngi topp ci santaane yonent bi sallallahu alayhi waaye ñu ngi yaakaar Serigne Touba def ko muy suñu wasila ba tey Serigne ma Mbaye sama maam kenn mënu koo fabriqué sëñ Moustapha Massamba Mbaye sama baay kenn mënu koo fabriqué liir bu ñu jaawale ko ba ñëw tuumaal ko sëñ Moustapha Massamba mel nii liir ban jaawale ko hôpital ba mu màgg ba ni sëñ Moustapha Massamba mooy sama baay du mel nii asuburi man sama jëmm daal setal sama ndaj asuburi man sama jëmm daal setal sama ndey sëñ Muntaxa Mbàkke mii gënoon ñu say yaay taalibe ba ca marché Ocass sax moo yow a ci yam képp ñun ñépp ñoo bokk gëm sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa gënoon ñu say yaay sëñ Muntaxa mii ngay wax ni danga koy tagg maa la ko dàq tagg fuuf te maa la ko njëkk a tagg duggal ci vidéo bi nga xool samay duggal ci YouTube bi nga xool samay vidéo li ma wax ci sëñ Muntaxa keroo ba sëñ Muntaxa di julli ci dëpp éggul ci jumaay sëñ Bàmba ju julli jiw dem jullee ji daaru mi nam bisu keroog maak samay Baay Faal dañoo daanu ñoo la gën a gëm sëñ Tuubaa ndax ñun dañoo yëkkati suñu waajur bu jigéen boole ko ñaar fukki junni joxe ko kon ñoo la gën a gëm sëñ Tuubaa ñoo la gën a xam sëñ Tuubaa asuuri man fan ni fa nga bokk yow bu dee ni fa nga bokk man sa bàjjan laa fa sa baay di toog fa laay toog photo yi ba sa yi maa ngi leen di jégalu bu baax ngir bëgg ki ngeen ma bëgg ak sopp ki ngeen ma sopp maa ngi leen koy jégalu bu baax waaye doom ji damay àpp jukkoom wax ko boppam tuuti ndax mu rekk ndax dafa yàgga tooñ ñu dul moroomam muy doomi sëriñ Murtala di ay sëti sëñ Tuubaa ñu baree baree bari ci man la mujje ma leen koy xam man nag damaa amul jotu xuloo awma jotu xeex waaye ku ma ci woo ma àbb sa jukko jaww ak suburi man sa bàjjan laa fa sa baay di toog fa laay toog man nag kàddu yooyu nga wax maa ngi la ci sant bu baax di la ci gërëm di ci gërëm ña la ko sax xam nga li tax ma la koy waxaat sama jëmm daal seetal sama ndey jii jëmm kenn monteelu ko sëñ sa Fam sëñ ma sàmba da koo jur ña la monteel ay wax leneen lan la waroon a wax lu bay ne dañ koo jaawale ci hôpital waxi dof ngay wax dof gi nga wax nag man dof ci ñetti fan laa koy faj boo ñëwee dinaa la faj ci ñetti fan gratuit ma defal la ko àddee sëñ tubaa ngir bëgg gi ma bëgg sëñ tubaa ngir gëm gi ma gëm sëñ tubaa ndax man xam naa ni yow wéroo réussiroo ko amoo ci dara nga daal dafay jóge dugg ci politique bi réussiroo ko ndax dangaa ñàkkeef sax dangaa réew moo tax réussiroo ko ngay tëb di saaga doomi sëñ mutulaam sëñ tubaa ngay tëb di di saaga sëti sëñ tubaa ngay tëb di saaga ñoo xam ne nii say bàjjan lan ñoog sa baay ñoo bokk lépp ngay tëb di leen daggal saaga gis nga man saaga woo man sa moroom mënumaa tiital ka nekk sa ginnaaw ku doon mënumaa tiital sëñ Muntaxa gënoo ñu koo bëgg gënoo ñu koo sopp gënoo ñu koo wóolu maa la ko gën a bëgg foofu dégg nga amul lenn loo fi mën a proteste sëñ Muntaxa te fekkoo ñu proteste ko ba nopp boo duggee ci YouTube bi nga xool li ma wax sëñ Muntaxa Mbàkke nga xam ndax man noonu sëñ Touba laa wala soppee sëriñ Touba laa gis nga man bëgg sëñ Touba force la ci man ndax man dañ maa préparé yow ak Ahmadul Xadim mi ma yaakaar man koñ préparé la soxna Aminta Amar sëñ Moussa Fane sëñ